voilà merci beaucoup di tàgg réew mi ay ay glissement de terrain ñun wax rek suñu xëyee suba ba ngoon di wax ñu sant yàlla ay catastrophe naturelle Kajoor ñu bàyyi la nga tàggatoo Massar Diagne waaw maa ngi gërëm ñëpp Pape daa mel ni fi nga ko mujj laal noonu kii na ko de ah, moom xam nga chaque jour daf may jéem a daa yor rek bu ma ñëwee mu juuj ma ko Pape noonu lay def amee <laughs> ni daal fale ko ñu laal waa APR foofu mu laalee mais daal li may wax daal euh, nañu nañu. mais mais Amadou mais mais Amadou Ba la Amadou Ba tant que kuy politique quoi. Amadou Ba ban. Amadou Ba ah. ban Amadou Ba waaw même bu waaye Amadou Ba na dem toogi. ah. nañu dem toogi sa bàyyi seen wax yi gis nga ñooñu. billaahi laa la waxee. ñooñu duñ doon dara ci réew doonoon nañ ko mais dootuñu fi doon dara. 35 pour cent ba pare nga. Ah, waaw fii laa la ko waxee xam nga lu tax entre dama ne. koo xamante ni yow benn fonctionnaire la bëgg yor ay milliards yi milliards mais nanu xoolaat li ñuy def duñ ko ba de milliards yooyu fokk ñu ciy wax duñ ko ba. ñu bàyyi la nga ak mbokk yi jërëjëf waaw maa ngi gërëm ñëpp euh, di leen ziar di leen dolli di leen ñaanal di ñaanal télé bi yàlla na yàlla na ko yàlla gën a yëkkati. amiin ndax télé bu sama télé la daal man. waaw di gërëm tamit. Euh, Euh, sama mouvement bi. tey nga say mbokku Pastefien ci loolu de. ñoom dañ ñoo singali. waaw non yow yow seetaan mais fu ñu toll di ñu di ñu di ñu ñu sànni xeer. da ngeen di bàyyi wax ci. te te lu ëpp ci ci yéen lu ëpp tey damay profité wax ko les soixante quinze pour cent des invitations yu Pastef am. fii lañ ko te muy dëgg. te te taxul foo leen toll di di sànni xeer. non dama ne dama ne non dama ne réew mi daal li ma la wax rek dama ne réew mi. Mm, mm. kenn terewul wax la nga xalaat xalaat bi nag booy xalaat ca la ngay xalaat di wax na ko boole jëf président Diomaye fay ak Ousmane Sonko dañuy jëf nit ñi dinañ ci teg seen bët. mais mais lu ma bëggoon wax Aïcha moom day jiite association boo xam des jeunes mais mais tu n'es pas jeune quoi loolu moo ma jaaxal nga jiite association boo xam ne dina koo jeune. non yow yaa ma mag <laughs> yow yaa ma mag. merci beaucoup sa bijaay nga yaa am yaa mag Massar ñu ngi lay jaajëfal léegi nag maa ngi maa ngi maa ngi gërëm waa Médina gépp di gërëm euh, waa euh, Kayar di gërëm Ngor Wakaam Yoof bàyyiwuñu kenn xam nga di wax ni rek. mouvement bi mais na leer rek voilà. <laughs> leer na non bàyyi bul bàyyi bàyyi si ruubee yi. waaw bàyyi rek ma ñëw tàggatoo moo gën. <laughs> yow dese nañ yeneen waaw maa ngi gërëm nag xam maa ngi gërëm ñëpp daal. waaw bàyyiwuma kenn. Mhm. waaw di gërëm euh, Mouhamed Gueye. kulim moom bi waaw kulim jine juum daal. Mhm. mouvement bi daal maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm askanu Medina gépp. <laughs> waaw di gërëm Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko. yàlla na leen yàlla defal jàmm. réew mi moom fee yéen a fi rek réew mi day jub. amiin jub jubal lañ wax.